suñ daam suñ farlu ak mboolem seen bokk yi ngeen àndal ak bokki taalibe yi ngeen àndal yëpp leen jottali it am nuyoo bu jógee ci Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne ci kàddoom laay waxe ak njaboot suñ champs bu gépp nuyoo bu jëm ci <coughs> Serigne Moustapha moom Serigne Modou Mbenda doon jëwriñi sunu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko sant bu baax di ko nuyu bu baax di ko sant ci taxawaay yi weesu yépp nga xam ne fa maam ya daa aw ak waajur yi yëpp tànk yooyu rek la taxawe muy këru ndigal te ndigal du jóge fi mukk ñaw foo di dellu siwaat te defuñu ko kon nag doxin woowu nga xam ne moom la doon te di ko doxee hmm, diggante bi yàggagut waaye xàmme wuñ ko doxin yu jëkk ya mat na rafet na noo ngi koy seede te di ci ànd ak moom bu baax a baax te di leen sant yéen ñi ànd ak moom ñëpp ci liggéey boobu ndax mel na ne da doon toppe bañ xëy topp ko waaye ni ko toppee rafet na te waxtu bu yëkkatee ndigalam it kër yëpp ay ànd ànd ceeg moom doon benn baat doon jënn jëm ba lam bëgg mu am ko ni ko bëggee loolu yi day wane rek ne liggéeyub sëñ Tuubaa bi ci kër bi Ibrahima <coughs> tànki kanam rek lay am waaye amu tànk gannaaw lii nag man dama ci bég lool ngir bari na lool ñu may waxal yàgg naa leen wax ne <coughs> ab taalibe bi dootu sañ a joxe xalaatam day dégloo rek bañ jox ko ndigal waaye man bu fekkoon dañ may laaj xalaat li aar dëkk bi ak li koy sàmm dañ koy teg ci loxol Baay Faal loolu ay at ngi ma di ko wax ba yaakaar naa ñu ñu bari bu ñu sama kàddu gi danañ xam loolu ndax li tax ma wax ko it mooy euh, am ñag day gën a ñagas la muy ñag te dama jàpp naka jekki ne Baay Faal ñooy ñagub yoon wi te doona sëkk ci worma worma ci tuuba ku ci doon jàngale lesson yi ñu ci war a gën a gën a joxe bind biñ ci war a gën a jàngale mooy nañ ko jàngale ci ni ko Seex Ibra joxe woon bañ na ko ba ay tànkam daw fi bari ndax dëkk bi ñoo xam ne dénk nañ ko ñuñ ko war a dénk dénk nañ ko ñoo xam ne dañoo doon warmaal dëkk bi te war a warmaal dëkk bi ndax ñooy ñooy ñagub yoon wi kon nag loolu man dafa dafa yàgga doon sama gis-gis jàpp ne lim leen di jaral du ko jaral benn takk der lañ cay manit ñun ñii ñëpp duñ ko mën <laughs> waaw ndax naka jekk ñooma te duñ duñ duñ duñ lu métti métti duñ daw duñ dem dañ cay na rek kon nag dénk nañ ko jox nañ yëfi yëfi borom la laa gëm man suñu mu taxaw mu jëfam sami'na wa ata'na rek lañ cay teg waaye jii nag da koo gën a doon jii ji moom da bu ma ko doon misaal dama naan deux cent pour cent <laughs> laa ci ànd te jàpp naa ne fii ma ne it sama bokk yëpp fi lañ ne waaye nag comme nag ci tur Serigne Cheikh laay wax Serigne Cheikh ak mboolem njabootu Serigne Cheikh bi gépp daal ñu ngi leen tàllal loxo ànd ak yéen ci liggéey boobu yi fekk ngeen nu ci loolu la kon nii ngeen ko defee dafa rafet lool mooy yaatal ko ci bokk yëpp ba ku ci ne yëgoo ci ak yéen ndax yéen ñëpp yéen a koy ànd ñoom ndax damay jàpp ne. surtout kër Sëñ Tuubaa moom bu ñu nee Sëñ Muntaxa wax na ba noppi kër Sëñ Tuubaa gépp dugg nañ ci kàddoom gi waaye jàpp naa ne buñ buñ nee lii dañ ko yóbbu ci kër Seex seex sépp lañ ko jox waaye jàpp ne yëfi seex sépp xëy na yéen yéene ca bopp ba waaye ñëpp ko war a ànd benn bopp lañ ma jàpp ne seex sépp benn bopp lañ ma jàpp ne bu ngeen ci boolee nag nangu loolu ak fekki leen jox leen seen cër loolu day yomb loolu te woyofal liggéey bi loolu nag day dugg ci yaara bi alil muridina maha fi indikal xasini wa chamlaj maa kon nag li ngeen def lu baax la noo ngi koy rafetlu tey sant bu baax a baax tey nuyu sëriñ am di bu baax a baax di ñaan yàlla nag sëriñ bi euh, niital leen yoon bi te jàpp leen ba mu woyof ci yen tooy ba ngeen am ci ndam waaye lu jot la waaye li wala doon lu jot yomb day door day door day door a xëy na rek jot ci noonu waaye yàgg nañ ko ñu bari yàgg nañ ko xalaat te jàppoon ne fii rek lay jage bàyyi fale rek ko man ndax seen yëfa kon nag ñoo yaan mu jàppandi lool ba ngeen am ci ndam yu bëree bëree bëri ñoo ngi ñoo ngi ak yéen nag moom bu leen du noonu moom fekk nañ ñu ne ci bu yàgg. ñu ngi leen di nuy ci turu Serigne Dame Abdourahman ñu gën koo xam ci Serigne Dame Atta Mbacke di xalifab Cheikh Ibrahima Mbacke muy wax ci turu kilifaam di magam di alxalifatul am di taifatil muridiya Cheikh Mouhamadou Mountakha ah, di joxe ndigal ci ndigalul sëriñ bi ndax dëkk bi moom genn kàddu rekk a fi am. muy li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ndax ñëpp moom la ñuy déglu ñëpp ngi ci ginnaawam képp ko di murit ndigalul sëñ Mouhamadou Mountakha moom ngay déglu lu mu wax amatul genn kàddu gum cee teg lu la sëñ ba wax lu bëggit mooy bëgg-bëggub sëñ bi fam yamit mooy fa sëñ bayam moom ci loolu la mas a nekk mbooleem murit it ci loolu lay la war a ne ku ne ak ku ci newut ci loolu nga war a ne ba tax na li muy def rek mooy soññi soññ gi nag mooy jëm ci li nga xam ne moom la sëñ bi joxe ndigal képp koo xamante ne ni koy déglu mu war laa jox ndigal wala koo xamante ne ni bu la joxee ndigal da ko jëfee wala képp koo xamante ne ni sañ na laa jox ndigal daal ndigalam mooy ndigalul sëriñ bi waaw li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ci dëkk bi daal te muy li nga xam ne moom la sëriñ Touba bëggoon ba taxoon mu ne tuuba Touba mahrusa xarasahu llahu taala min kulli makruhin wa maxoofin waaw suñ borom aar na ko ci lépp loo xamante ne ni euh, dëppawut ak bëgg bëgg suñ borom suñ borom aar na ci Touba lépp luñ ragalit képp koo xamante ne nii yaa ngi fi te nekkee fi na nga fi war nekkee suñ borom doon la ci musal kon loolee sëñ bee jëkk aar dëkk bi waaw aar googee nag ah, ci la sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa nekk rek waaw moom it di ko aar ci di joxe ndigal mhm. di bàyyi ay tere lépp loo xam ne gis nañ ko fi te waruñu koo gis mhm. wala luñ ko luñ fi dégg te waruñ fay am ñu fexe ba loola moom daal di fiy jóge mhm. sëñ bi daal ndigal loolu rek la joxe te ci la nekkoon te du ci mas a jóg mu ngi leen di nuyu nag te di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen la ko sëñ bi féetaleel waaw muy Baye Fall yi di Baabul Muridina waaw dëgg la baaxu baax mooy lu yàlla dogal ci nit nga yéene lu mu dogal ci yow. Mhm. mu neex la. Mhm. noonu la sëñ Mountakha dund. cinq laa ko xamoon sëñ Bassirou boole ma waaye nii ma rek la ma xam ne musta juróom mhm. ndigal. musta teg baat ci lu kilifaam wax sëñ Moustapha sax luñ bokk bokk. da ko daan ne lii néew bokk sama digg ak yow kat na ko dindi. yemale naa ñëpp. loolu la doxee ni lay doxee ma de. ku xam laa ko yàgg a jaxasoo naa jox na leen ndigal mm. jox na ndigal fu ndigal dëkk mm. waaw que Cheikh Ibrahima moom mm. ñëw laa dégg naa ma daan wax naan mbañum <coughs> kër sëñ Tuubaa mooy ndigal dugg kër Cheikh Ibrahima mbañum kër Cheikh Ibrahima mooy ndigal dugg fa te jëfewuñ ko ngoog nag kon moom daal man sama xol seet ah, sama njëriñ na fa muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem